bi nee na li si tontoom nee na sëriñ bu so ak seex Ibrahima Fall nee na ñaari jëfandaay sëñ Tuubaa lañ nee na yàllaa ko booleek moom sëñ tubaa mënul it ñàkk ñoomit it mënu woon a ñàkk si sëñ Tuubaa ndax ñoom nee na seen lépp sëriñ bi la nee na sëñ am di xam ne la moom moo nekk fii rek ci sëñ nee na su mënoon a jiitu sax du leen di jiitu nee na su mënoon a jiitu si sëriñ bi nee na mooy jiitu sax nee na la sëriñ Tuubaa sëñ Abdu Lahat waxoon ni duñu doon ay murit waaye ay saadex la ñuy doon nee na suñ mënoon a jiitu nooy jiitu te yéen jiitu de <laughs> boso ndax Serigne Touba moo leen dénk nee na moom sëñ Omar nee na li nga xam ne sëñ tubaa dénkoon na ko sëñ Mbàkke Buso fas na yéene li feek mi ngi noyyi dara du soppiku dara du soppiku nee na ku fi nekkal sëñ Touba loo bëgg nee na suñ ko yëgee rek daanu ko def nañ ko bëggee nee na te fas nañ yéene desu leen seen mukk si lu sëñ bi tere nee lépp loo xam ne war na koo def ne sëñ Omar nee su ko yégee nee na dana ko def dana ko ko defal waaw bala waaw bala koo yég dana ko ko defal waaye gannaaw sëñ Tuubaa da ko ne woon Mbàkke Buso toolub lislaam bii sunu borom joxoon yonent bi yonent bi yor ko ba mu mel na mu war a mel mu jóge fi mook saxaaba yi nee na tool ba mel ne dafa am am ruur sa biir ma ñëw nee na yeesalaat ko ba mu yees peq nee na ba mu mel na ko suñ borom digale woon yonent bi yonent bi bàyyi ko fi nee na la ko delloo daal di fab sunna nee na ñage ko tool bi nee na wutal ko benn bunt ne ko bu so bunt bii toog fi lu nar a jóge si àll ba dugg si ñag bi dugg si tool bi génne ko lu ne si tool bi bëgg a yàq tool bi génne ko si biti alhamdulilah cë <laughs> kooku mooy lépp de <laughs> mooy lépp buso <laughs> waaw mooy lépp buso nee na sëriñ bi nee li muy wax mooy ku aju sëñ Mbàkke Buso walla ku dib julit wala réew mi ñor la li sëriñ Muntaxa bëgg nañ ci maase ñëpp defal ko ko nee na du senegal rek nee na réew mi yëpp fu fi waay ne nañ jàppale sëñ Muntaxa si kàddoom gi teñ xam ne kat àddina ji li si baax suñ borom si loxob sëñ Tuubaa la ko teg kum ko joxut doo ko am bu so